Nongi gi siar bax wa rew mi di siar bax ñi nga xamne euh ñi gi ci bir suuf yalla suñu borom oyofal suuf ci seen kaw mbollem ñi fi dess yalla leen fi suñu borom bayyi ba man ko jaamu deug deug luñ fi def ci bakkar nañ ko suñu borom jéggal luñ fi def ci tiyaba yalla ko fulul di siar ñi nga xamne ñi gi ci bir prison yi noo gi ñaan suñu borom genn leen ak jàmm ndax liberté ñepp lañ ko yéene té sëñ touba defal nañ ko kon noo koy ci lolu ñi ci kaw loolu hôpital yi itam noo ngi ñaan ñu jug ak jàmm ñu tëdd ci seeni lal te demuñu hôpital it noo ngi ñaan suñu borom yëkkati leen ndax moom moo gën a gaaw docteur yi moo gën a gaaw lépp ndax muhammadin tabib binal hakimi ak asara may rabbinal karim noo ngi siyaar baax mbooleem soppee Touba TV yëpp di siyaar góor ak jigéen mag ak ndaw réew mi bitim réew di jël sunu siyaar teg ko ci loxol Serigne Cheikh Balla Samb mu jàll ci mbooleem personnel Touba TV nu murid yop ci ndakaaru tek nañ ko ci loxo jeewriñ seigne Ahmadou Mbàkke yu mu séddaleel ko mbollem ko xamni yaangi yaa xel jotay bi noo siar bax jambaari seigne touba ji nga xamni fan yep ndaysan mi ngi ci rew mi euh, muy Cheikh Abdou Karim Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil ak euh, mbollem kum bokal seigne touba rek siar nan la noo siar seigne basirou Basiiru mom Cheikh Abdoul khadir di ñaan seigne touba yok ko lol ba mission bi nga xam ni da ci liggéeyal Serigne Touba maamam di ci defar di liggéeyal lislaam bi yàlla na ko àggale fa mu ko bëgg a àggale ci darajay Cheikhul Khadim tey noo ngi waat ci mooy li ñu waxoon di melokaanu murit melokaanu murit thème bi mooy continuer noo ngi siyaar sañ Youssou mi nga xam ne moo na ci technique bi waaye sëñ Abdou Khadir Ndiaye moom sañ Baara noo ngi koy siyaar bu baax moom sëñ Abdou Aziz Abo noo ngi siyaar it sëñ di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool ci barke sëñ tubaa bu ne melokaanu murit euh, ci lañ dugg tey euh, dañuy continuer lan doon wax gis ngeen keroog bi nu ko tàmbalee dañoo wax ne gis nga murit ni ko sëñ Tuubaa di def ndax sëñ bay Jaxate nee na ndaxam ab murit saa su bëggee lu dul ndigal ak ngërëm du benn murit moom du benn murit fobal sab sëriñ tekki sab xol xalam ba far fàtte soxla ki lee dib murit noonu la ko sëriñ bay Jaxate waxe waaye ni ko continuer won gis nga dama tambali ca cheikh sa andon ak serigne bi ni ñu ni len serigne touba defale ndax dama ni won bul gis ben way bu sagare wala mu wax wax ju waxawut wala mu mel noo ka sudut nonu ken bëggut mu mel ken bëgg ko roy ci na mu mel mu tuddu serigne bi tax yow nga bëgg ci atté mouride dal dina la de gisone nga benen mouride bala nga gis boba mouride def nañ lu jara xol mel na nu dara jara xol te it euh, jar na noo xool ma dal lay indil serigne bi nga xam mom mo moo sos yoonu murit moom nag boo seetloo la ko la ko négrier waxoon doy na da ko ni won de passard noirceur d'ébène quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans notre vie ce qui est blanc dans ses yeux est complètement blanc ce qui est noir est complètement de sa taille qui est très petite de son corps qui est luisante manam indi ay melo ci mom nga xamante ne melo yooyu boo demee ca na ko sëñ Moussa Ka waxee woon ne ko yaa yaa doon Seexuna Bàmba moo fi wuuti su yeneen te misaal mi li wér la fir xuraan yi xulafaaxu yeneen ya ngir yanu xàlloon yaa ko dekkal yor kaamilu usmaan yaay Malik yaay Saafi yaay Anbal booba luy xutbu rek yow yaay sultaanam yow yaa di yow yaa di donay eh, am di yeddaali do doon ngay nuut mbuutu naari ma waa deymaani daal di ne ko nag bala yàlla di yebal si fi ama sharih booba luy xutbu rek yow yaay sultaanam kon sëñ Tuubaa melokaan doy na sëkk ci ni mu formé ay nitam daal di indi maam Cheikh keroog gis naa gis nga na ma la ko waxal nga xamante ne boo ko indi woon ci biographiquement doy na sëkk ci présenté ko nga ma indi maam Thierno Birahim noonu laa indi sëñ Mandumbe Xabbaan indi maam ma ma sëriñ sàmba indi ka nga xamante ne mooy sëñ Balla keroo sëriñ Cheikh Coro ah, sëñ Thierno Aïssa nga xamante ne Serigne Touba mës na ne wool leen ma cerno ñu ne ko mu mag mais mu ndaw ndax ku ne xam ne ni maam cerno Birahim moo ko féete mag Serigne Touba ne ngeen foog ne mooy mu ndaw ñu ne ko cerno Aysa de moo féete tuuti ndaw Serigne Touba ne leen kooku du gone kenn ndax fekke woon na xare Badar Serigne bi moo wax loolu mag ñi nga daal di jóge ci kooku ñëwaat nag ci seex si mu defar bi ma tàmbalee ci seex Ibra Fall dugg ci seex saa Jenn dem ci sëñ Mandumbe dem ci sëñ Mandumbe seigne seigne Balla fali Jeng seigne mo djop Paxa ah ñooñu nga xam ne kenn ku nekk boko ko di nga xemem yoonu mourid ba xam li du lu nu propagande mi kenn ku ci nekk maton nga jamono ku dul seigne touba mëno leena yirif non la ko indé daal di indi domi yi doom yi doy na jaratu ñu ci wax lako dal ci cheikh Mustafaa al Karim ci sang yi ba ci cheikh Murtada dalé ko ba ca soxna Faatija ba ci soxna May kenn ku ci ne mattoon dëkk sëkk sëkk li nga doon ndax doomi Serigne Touba la kenn mënta weccee ñu daal di jóge nag indi murit yi nga xamante ne ñoo ñooy sët yi jëkk yi boo indee sëñ Modou Baara indi Serigne Cheikh Gaynde Fatma ci niveau intellectuel am diplomatie Serigne Cheikh doy na sëkk ñu ne kii ku dul Serigne Touba mënoo koo yilif mënoo doon mënoo doon maamam ku dul Serigne Touba Serigne Cheikh ci dimension bi ak ni meloon ci côté yëpp. fànn boo xool mu jeex ca tàkk géeju ca kooku préparatifu seexul xadim la ma daal di jóge foofu daal di ñëw ci ni ngay gisee murit boo xamante ne xëy na wax na ne la ab murit la ñun sax bañuñu kooku dib murit waaye dañoo gis beneen bu nu gënal kooku daal lay indil seex basirum sëñ abdu xaadir indil naa la sëñ abdu karim mbàkke maakaarimul axlaax nim ci nim defaree jikko yi ak euh, dimension bi nga xamante ne yóbbu na fa nit ñi indi la seex Muntaqa mi nga xamante ne moom sëñ Bachiru nga xam ne fu ko nit ñi gis àdduna bi wërngal këpp boo doon wër àdduna bi doo gis ku mel ni sëriñ Muntaqa ma daal di jóge foofu nag léegi nag ci murit yooyu nooy continuer nga daal di ñëw ci ñooñu euh, nga nga nga nga jël sëriñ Abibu Mbàkke moom Seex Mat Faadal bu la rombee gën laa dib jàmbur ëpp la njàng ëpp la dégg liggéeyal sëriñ Tuubaa doy ko tey ak ëllëg subaak ngoon guddeeg bëccëg mu ngi ci der ba ca kaamil ba ca xasida yi sëriñ tubaa yi di faj aajoo jaam ñi te bu génnee nga xam ni kii ab murit la sëriñ Moustapha Mbacke moom Alaaji Baara du leneen ab murit la sëñ fàllooy maamam sëñ Baara ko jur mu wóotu ko téye njaboot gi te dara yàquwut bu la rombee nga xam ni kii sëriñ tubaa jeex tàkk ca xolam gisul leneen sëriñ fàllooy liggéeyal jaare ko ci sëñ tubaa làq ngërëm mi mbooleem ñi nga xam ne alaaji baare bàyyi na ko ñoom ñëpp kooku bu leneen ab murit la nga daal di jóge ci kooka dal di ñëw ci sëñ Aliou Mbàkke mi nga xamante ne moom lañ jël maaw rahmati dénk ko ko nga xam ne dimension intellectuelle am ak njàngam adduna bépp mu koy jël di ci tasaare lu baax boo demee ba tukaar gis jumaa jam fa def kooku ab murit la Serigne Touba la yaakaar Serigne Aliou Mbàkke comme mel ni Seex Mustafaa Mbàkke mooy wéy juróom nga daal di cey jóge daal di ñëw ci waa kër Sëñ Abdu yi boo ñëwee ci sëñ Fàllu Mbàkke moom sëñ Abdou Khadre mat na sëkk li mu doon dip murit yaakaar sëriñ Tuubaa ba jeex tàkk gëm ko ba mu jeex tàkk kaamil bi lay naafilaa weeru koor wu nekk buy jàng danga naan kii xanaa daa tiim kaamil bi te isib weeru koor yëpp ñaari isib yi nga xam ne da koy naafilaa ba koor gi jeex kenn ku ci nekk bu ñëwoon ci sa bërëb mat la ilimaan sëkk kooku ab murit la nga daal di juddaat ci ka nga xamante ne magam la ba tey di Seex Mustafaa baax lool ku ko gis xam ne kii ku baax la xar kanam ga doon ju àjjana kooku du leen ab murit kese la boo seetee sëñ Murtada moom sëñ Fàllu man cee àtte murit yi sëñ Abdou Fata moom sëñ Ahmad Fadal mën nga cee àtte murit yi nga dugg kër sëñ Sohaybu nag sëñ am sax moom sëriñ Sohaybu mat sikk li mu doon boo ko xoolee sa xel dem ci yàlla mu baax lool te sell lool kooku ab murit la nga jàll ca magam sëñ Abdou Samad Mbàkke moom Seex bu kooku murit la xool ko ci dimension bi mu yor ak li mu bëgg Serigne Touba di ko liggéeyal ak désintéressement àdduna bépp fu mu ci teew ay wëlisam ay nit a koy gàddu loolu ki ko ko may mooy maamam ji demoon ci géej gi kooko mën nga cee àtte murit yi boo jógee ci sëñ sëñ Abdou Samad boo duggee ci sëñ Amsa moom sëñ Abdou Lahat mën nga cee àtte murit yi boo demee ci sëñ Danu sëñ Abdou Lahat mën nga cee àtte murit yi nga daal di génn nag ci ñi nga xam ne sax da leen di tudd tudd sëñ Tuubaa tudd seen wayjur génnal foofu demal daaru moti boo duggee xam ni njabootu maam cerno gépp dégg alxuraan xam ko lool di saraya mel nu baax lool boo xoolee kenn ku ci nekk la ko dale ci sëñ mu daaw balla ba ci bay cheikh xaddi miinu mu jee kenn ku ci nekk mat li nga doon abbas fi bay ak sëñ xalil mbàkke kenn ku ci nekk dëkk bu mu dem kenn ku ko fa mën a yilif ku dul sëriñ tuwaa doo ko gis cerno mel ñi mel su sëñ Abdou Mbacke moom Baye Cheikh Khady matoon na sëkk ñu jël Daaru Moxti gépp présenté ko àdduna bi kooku fu mu teew dëkk bu ne mu wàcc fa kenn mës ta def lu mu ko lu ñu koy yeddee kenn mësu koo gis ci loo ko war gis kooka ab murit la nga daal di jóge ca kooka dem Daaru Salaam boo duggee Daaru Salaam njabootu sëñ Moodu Maamun gi jàll ci alaaj sëriñ ko jàll ci sëriñ euh, Ibra Ndar ñooñu nga xam ne ay intellectuel lañ gëm sëriñ Tuubaa lool waaye nga jàll ci alaaji saam boo fa jógee demal ca ka nga xam ne mooy Serigne Moustapha ceytu wala nga dem ca ka nga xamante ne suñu Abdou Góor ak njabootam Serigne Moustapha ceytu ñooñu ñëpp kenn ku ne meññ na koo xamante ne dëkk bu ñu taxaw dañ koy yilif moom ko te kenn du leen moom kon yaakaar naa ne ñooñu Serigne Touba képp leen mën a yilif te ay murit lan mën a doon moom lañ bëgg doon te duñ doon leneen lu dul ay murit nga daal di dugg fa nga xamante ne mooy njenne bo demé seigne abdou salam jenn mu ne te xam li xew suba ak li xam ginaaw suba way diggo ko ci len sëriñ Tuubaa la bëgg du faat waxtu bëgg lool lu baax sharia mu digg ko lool di jangale produit bo ci dem nga nan fi la fanaan bi bo fanane daru salam ba genn bo duggé daru moxti da nga nan fi la ñewon démb bo duggé ba mu jeex bo fa genné bo duggé kër seigne da nga nan fi la ñewon Cheikh ibrahim ñu wara mel serigne cheikh ndigal fall soko xolé ci dimension bi mu yor nga xamni at mi yeb da koy tukki di tassare cheikh ibra ci aduna bi ndax cheikh ibra fu mu tass rek serigne touba mo fay tass cheikh mu mel ni mu mel wutu serigne cheikh fall bayib gor ca ba muy ndaw te koko ab mourid la yaakar serigne touba boko topone mën na ko top kenn ku ci nek boko xolé bi nga baye sa pencum wayjur bi nga ñewé ci serigne touba defal na la lu tax sa mbokk yep daw top la gëm la yaakaar la di liggéeyal sëriñ tubaa di xemmem sëriñ bi te yow yaa tax te ba nga fay jógee yow meloo woon noonu kookoy seexul xadim defaram bokkut ak beneen nitam du keneen ab dëkkam du jeneen mbeddi tuubaa doy na sëkk ci melokaanu murit nga xool mbedd yi mbedd moo ci dugg da nga naan may ma cinquante ba may ma trente ba may ma nàngam ba ndax mbedd moo ci dugg da koy solu ba fu la neex ngay daal di génne ji boobu dëkk sëriñ tubaa ko am dëkk boo xamante ne kat seen jumaa lañ tabax jumaa ja doo yeewu naan fan la féete dëkk boo mën a fanaan mën ngaa xëy di laajte fu jumaa ja féete Tuubaa Mbàkke rek ngay dugg doo laajte fu jumaa ja féete kon jumaa jooja ab murit la murit boobu nag boo ko xoolee tey doo ne exemple bu nu demoon ba wal buftu bi bu nu demee ba yowmal xiyam ñuy indi kenn ku ne jumaa yi kenn ku ne naan jumaa nangama nga ne jumaa nangama nga ne jumaa dana jóg ñu présenté ko suñu borom ñu naan jumaa ji fan la nekkoon waaye jumaa yi moom bu jógee àdduna wërngal képp ñëpp a xam ne jumaa ji Serigne Touba képp ko amoon te kenn mësta dajeeg leetaram fenn ñuy laaj limbal di laaj lenn kon lii mooy Serigne Touba kon dimension murit ak melokaanu murit mooy la gën a sell la gën a baax gën a am personnalité gën a am dignité gën a am fidélité gën a am sincère ak murita ngoog kon yaakaar naa mooy noble loolu nag Serigne kër Karim Mbacke wax nañu ko bërki démb nan dooni noble te gëm seigne touba te diko ko liggéeyal ak désintéressement kon ubbil ma téléphone bi ma ànd ak murit yi nga xam ne ñoom yëg nañ ni sëriñ tubaa yóbbu na leen ci dimension bi nga xam ni kenn ku ci nekk yaakaar nga seigne touba muy 88 628 08 18 ma ci siyaar bu baax a baax ah am nañ information bu ñu fi jot léegi muy sunu benn jigéen boo xam ne mi ngi fii ci télé bi muy ku nga xam ne ko mama Ngone nekk ci euh, di suñu comptabilité mun naa wax Euh, benn euh, koo xam ni moom tànt la ci moom dañ ko sàcc xale bu ndaw la quatre ans la am ñu ngi ko jële fii ci wetu Masalikul Jinaan soxna Binta la tudd ñeenti at rek la am wéy juróom bu góor mi ngi tudd Taala Sàmb yaayam mi ngi tudd Dëgën Seck moom mi ngi doon jànge ci école Salma bi nekk Cité Port moom waaye mi ngi dëkk waagu ñaay kooku nag élève la boo xamante ne bi mu génnee di dem euh, ci ay 13 heures la la ko benn soxna daal ne ko kaay sa yaay nee na ma yóbbu la nga léttu mi ngi noonu bi ko nee ma yóbbu la nga léttu foofu nag la ko daal di jël daal di koy daal di koy yóbbu kon nag képp koo xamante ne bëgg nga ci leeral yoo xamante ne nii danga nga koo gis wala nga mën a dimbali way juram ci benn ndimbal da nga koy woo ci numéro bii may bëgg a wax muy 77 738 04 97 77 738 04 97 kon maa ngi siyaar baax mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi bëggee émission bi ñëpp nga xam ne émission bi émission Cheikhul Khadim la Serigne Touba moo ko moom kooku rëcc na ma xaaraat keneen ku dugg rek ñu jël ko direct mu daal di àndandoog ñun may tudde nag émission bi sama yaay joo xamante ne bërki dem rek maa ngi jokkoog moom ci mbuur mu woy soxna soxna Fatou Kiné Sarr euh, soxna Fatou Kiné Guèye Sarr nekk fële ca Bologna di sunu yaay joo xamante ne mom nee ko ya nekkal Touba TV fofa ci italy ndax beugum Serigne Touba ak di liguel Serigne Touba beug serigne Fall lol di wax ci serigne Abdou Karim muy soxna Astou Dioum noo koy siar ak mam Jaara tal nga xamni ne yaay Khadija bismillah bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salam wañil tele bi tout rek. waaw ñu ngi siyaar bu baax. kooku. waaw ku bëggoon woote ji kii bi Touba TV. wa da ngay wàññi tele bi. waaw da ngay wañ télé bu baax ba yow doo ko dégg. wàññi naa ko waaw wàññi naa ko. yow rek la ni déglu. waaw sëñ Mamor Mbacke. Mbacke. wa ñooy ziar bu wér kay. noo lay ziar. ba ya ci jam bu baax a baax. sant Serigne Touba bu wër ah jërëjëf Serigne Touba waaye Serigne Touba damay lepp yow la kan. wa man la mbokk bi fallu Gueye Touba na nga Nangasé. Touba ma nga Nangasé ngay nga Nangasé bay dam wa Touba nga sé bay dam fallu Gueye. anam murit yi ma tuddu sank kan nga ma ci gëna wax melokanam bu la marqué. waaw moom kay dëgg yàlla lépp rek Serigne Touba la jàmm ju waay am daal Serigne Touba la yow nga santee ko ko de xam lépp moo ma de barke borom Touba waaw dañoo kontaan rek gis émission bi rek xam ne boobaa léegi bu su ñëw dugg nag ñu moom da mu ko man ma ne woon tey moom ma jaan de fexe dugg quoi ndax dama ne tey murit bu yëg ne Serigne Touba defal na la melokaan bu la neex dama ne murit bu yëg ne Serigne Touba defal na la melokaan bu la neex gëm gi nga ko gëm ànd nga ceeg feer rek na nga dugg dëgg la dëgg la de. jaajëf waay jërëjëf Serigne Touba waay. jërëjëf Serigne Touba. waaw ah, ñëpp wax rek ak Seydou Khadi. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf ti ah, Mouride boobu tubaa magasin maa ngi koy ziar waa Madiana ñëpp ñoo ngi leen di ziar waa garage Daaru Moxti ndeysaan ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziar. noo ngi siyaar baax a baax ah, sama mbokk yi nga xam ni ña nga fa ñoom ñëpp bàyyi ma kenn waa Colobane ñëpp. salaamaaleykum maaleykum salaam. ah melokaanu murid yow mii dong yaa ko yore. <laughs> Alaaji Atma Guèye. waaw ni nga doxalee keroog sama xol sedd na ci. ah ci sëñ Abdou Karim ndeysaan. waaye sëñ Abdou Karim kenn du moom. oh Youssou wan ma photo yi wan ma photo yi ba nu xam ni waa jooju kenn du moom. ah non kenn du moom boo gisee la ma sol keroog mu jox ma ko ba mu dikkee dama ne ah foogoon naa dina ñëw de ma ne ko maa la ko waxoon maa ko def mbàkke balla foo ne ma fekk la fa. kon mbubb moom moo la moo ma ko jox. bàyyaat ma nag moom war war ngaa ñëw def ci émission. ah. war ngaa ñëw na def ci émission ndeysaan. ah waaye boo ma woon ma ñëw waaye xam nga ne si moom benn affaire la. waaw sa waa jaa ngi nii de. wallaahi sama waa jaa ngi noonu. barke Seexul Xadim. kenn su ko waaye nag Maam Mor yàlla nga gudd fan. amin amin amin amin amin. Maam Mor yaa di muri yaa di taalibe. alhamdulilah. keroog Alaaji Jaaji Taal. wax dëgg yàlla oh. métti woon na ñëpp waaye ñëpp seen xol sedd na ba nga taxee place am saan ndeysaan ndeysaan ndeysaan man sama xol dafa sedd yàlla na yàlla doolee jàppale ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf walaay xoola sëñ Mbàkke ña ngi noonu ak waaw sëñ Mbàkke ña murit la kooku mook sëñ Xaadim ah, Ndaw itam kooku doomu kookoy doomi soxna may galas nag aha kookoy doomi soxna may galas bu kër yi may ni jaayam ah kooku war naa taxaw nijaayam jaayam mu soxna may galas a ko jur jox ko ni moo ko yar mhm. moo xaadim Fall moomu sëñ Abdou Karim a leen yar tàggat leen. moo leen yar ndeysaan. dégg na sëñ Abdou Karim li ko yàlla may ci yoonu murid xam naa ne yombut. dëgg la bàyyaat ma. ñi ñi ko ci mag bari nañ lool waaye cey ku la ngaa toll ni moom. bàyyaat ma wax nga dëgg. sëriñ boo xam ne mosoo génn Sénégal mosoo dem fenn. ah déggoo li mu wax keroog ci déclaration mu ne moom léeg-léeg rek lay génn dem Touba bu nammee kenn ci magam yi dem ci aar ji ko digg toogaat. yi dégg ko fa la yàggal ko fi. bàyyaat ma xam mooy bi mu duggee Saly. waaw tubaab yi yow gis nga ni ñu doon def ci kaw tali bi. Mm. mais damaa jaaxle. loolu moom loolu beneen affaire la moom. filmé nañu lu ne def nañ ko mu mel ni àdduna su tas la. dëgg la barke borom waaye man nag xam nga li ma jaaxal. Hmm. loolu sax jaaxaluma bi ñu jógee ceeb fa ñu daloon bay dem ca tànt ba. waaw foofu moom. distance 5 km. kilomètres lépp di ay base faal kenn ku ne jàpp sama room loxo. barke borom ci deux côté. di daw loolu du oh. kenn su ko gis. barke Serigne Touba ku amul dara. kenn du moom moom suñ fàll ba jeex moom. léegi mais tax ma ne neewoon naa leen keroog mbuur du man a neexe noonu. Mhm. ndax dafa ëpp. dafa ëpp lool ndax ku ne bëgg a jege si ku ne bëgg a wax ku ne bëgg a tool nit ñi moomatuñ seen bopp sëñ Touba moom nit ñi. barke borom Touba. moom moom sëñ Touba moom jaam ñi moom moom nit ñi ñi bëgg a dem ñëpp sëñ Touba leen moom. billaahi wax nga dëgg. moo nag boo gisee keroog mbiru si Abdou Karim mi man de sama xol dafa seet damaa dégg foo toog xamatuma nu may def. waaye maam moo Mor gën naa laa jàpp gën naa laa fonk gëj naa laa doomoo yàlla nga gudd fan. bàyyaan ma keroog gis naa ni nga ni nga ni nga ni dong nga def ba mu jeex keroog sama xol dafa sedd. alhamdulilah alhamdulilah. jërëjëf jërëjëf Guèye. Euh, kii dugg sunu jur la moo ma njëkk a génn dëkk bi ne ma kaay waxtaanee ji sëñ Touba yóbbu na ma màggalu sëñ Marouba ñaari at ma waxtaan ko yóbbu na ma euh, euh, kokki kàdd ndeysaan fu mu am dara rek barki démb rek. domam bi nga xamantene ni euh ab métis la ndax tubaab moy woy jurom te gem seigne Tuubaa lol waye euh, muy seutam dafa dafa da ko defal ak ñaan kérok ma ngi seigne safa kan abdullah Diouf Manda Gàkku seigne Mor Guèye han seigne safa Diop taysir jambar yep ñom àll kan ñep rek ñun la wo ne kay leen ngeen defal ko ngeen ngeen defal ko am ngontu muy biñu joggé euh, magal gi di wacc gamu gi mom lu mu xewle rek day fogg ni. ñun rek buñ ñëw dara du baax waaye ñun ak njabootam lan ndax ku ne gis na ko ci Masaalikul Jinaan ak taxawaayam moom alaaj yaat ma moo tax bi ma nee tey murit bu yëg ne li la Serigne Touba defar rek moom war naa mën a dugg ndeysaan war naa dugg ndax servir na douane ba mu jeex waaye nag mosu faa wane lenn lu dul ak mbaax ak jikko ju rafet ak di liggéeyal Serigne Touba bisimilah bu fekkee keneen dugg na ma jël ko 88 628 08 18 murit bu yëg sa melokaan ci Serigne Touba duggal nu sant ci Serigne tubaa bu baax a baax. Euh, noo ngi siyaare baax a baax mboolem waa réew mi ndeysaan mbuur keroog foo romb ñu ne tele bi la ñuy seetaan moo tax mbuur mbuur moom li tax ma gis ñuy dugg ci émission bi saa su nekk ah, maa ngi koy doog a xam am na sax koo xam ne dafa maa daw dab ma eh, ni ma oto ni ma nit ñi toppee mu foog ne xam naa man maay maay sëñ Abdou Karim waaye moom dafa comprendre rek mu daal daw nag daal di may jox benn eh, daal di may jox xaalis na ma am waaye bi mu demee ba xam ne du man rek benn soxna la daa ñëwaat jilaat xaalisam. ne ma sëñ bi laa koy joxe <laughs> ndeysaan kooku noonu noonu noonu la def waaye 1000 francs la woon ma ne ko moo ne mënul nga ma koo jox rek ndax xam naa ni moom <laughs> ma boo ma ko joxoon ci boo ko joxoon sama kanam sax boo moytul man mën naa koo kii yoog yooyu eh, ndeysaan muy ku baax koo xamante ne ndeysaan de keroog bi mu duggee sali tubaab yi génn man leen ah di ngeen taxaw am na Baye Fall boo xam ne dof ki ñuy yox dof Baye Fall bi benn tubaab day génn ak otoom mu bloqué ko ne ko kii ngay bàyyi mu jàll ma ne ko ah sa maamam moo yóbbu woon maami kii tey day taxaw kii jàll loolu la waaw bu fekkonte ne ñoom dañoo gañe ñoom tubaab yi sëñ Abdou Karim mooy taxaw ñoom ñu jàll waaye comme sëñ tubaab gañe na moom na taxaw sëñ bi jàll loolu rek la bisimilah bisimilah bisimilah euh, kooku rëcc na nu xaaraat keneen ci ligne bi ndeysaan ñoom sëñ Xaayim Sàmb keroog seen taxawaay ak euh, waa ñàgg Touba ñàgg nag keroog taxaw nañ taxawaay bu rafet Euh, maa ngi leen di siyaar baax a baax euh, jëwriñ jë euh, sëñ sëñ Bamba mooy jëwriñ jë maa ngi koy siyaar baax a baax di ko ñaanal itam maa ngi siyaar baax mbooleem ñoom sëñ Abdou Ndaw alaaj tubaa Sène baay tubaa seen day saan ci taxawaay bi sëñ du sekk hmm? ñoom Pape li sa Ndiaye jàmbaar yooyu ñëpp maa ngi leen di siyaar baax a baax di leen ñaanal ci barke sëñ tubaa sëñ Cheikh sàll tam noo ngi koy siyaar moom alaaj Serigne Sall di ko ñaanal baax soxna sa Sophie mbay moom tam ñong koy ñaanal ziar baax sëñ Abdou mbake mom Baye Cheikh hadi soxna Aram Diop ñong koy siar nek fee ca Thiès liggéeyal Serigne Touba rek ak désintéressement momit ñong koy siar mourid bu yëg ne daal Serigne Touba defal na la mourid gu la doy duggal siaré mbokki talibé dégg la nga dal di may wax kan moy sa buntu ci sëñ Touba def nii bàyyaat ma def lolou wañu dara bu fekkente ne amna kuy duggu mu jall direct 88 628 08 18 bu fekke amna ku nek ci ligne bi ñu dal di koy jël waye soxna si nga xamni dal jël nañ ko mom képp koo rek am nga ci ben renseignement rek nga dimbali nu ngir yalla dal di koy def te kiko ko jëlit mu xamni bis dana jot mu tërërëg bàmmeelam mom kese mo fay fanan kon nak fanan gogu fanan mu jara xarat la ndax seigne sambay wax na ne guddi gu jëk ci ko ko dul xalat lu la neex rek mën nga ko def waye boko doy xalat mom di nga xamni nak aduna du keur ndax aduna mom seigne euh, way kat waxon nako bu doon sahul xol di yoolee kon doomi doomi bamba duñ ko jaale ndaysan aduna gan la li fi nekkit gan la lu yag yag tam du teenu xam ni sëñ Fàllu mbër la nonu la ko waykat yu waxe ah muy way euh, olofal yo xamantene ma ngi wax sëñ Mbàkke Mbuuj sax nako jilat ñu tek ko ci télé bi di jangalat nit ñi ba nu xamni lu jëkk la rek moy lu murit daal ki gëm sëñ Tuubaa diko liggéeyal bisimilah allo bismillah jere jërëjëf naw gor way jërëjëf Serigne Touba. yëkkatil kàddu gi tuuti. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. këy murit murite na mi ngi doog a murite. ndeysaan. waaw ah, Serigne sëñ Mamor kontaan nañ ci yow. alhamdulilah. ndeysaan. parce que Serigne Bamba kontaan nañ ci yow maa ngi nii tëdd sama néeg jàkkaarloo ci écran bi. noo tudd. man maa ngi tudd Moustapha Seck dëkk Thiès. Thiès nga dëkk yaa ngi wootee Thiès. waaw maa ngi wootee Thiès tudd Moustapha Seck. kan mooy sa buntu. ah man day sama buntu mom kuma gëm mhm. señ señ señ señ señ sadikh ñang señ sadikh ñang men waaw ah, oh, mo dekkon gede ah, mo dekk gede jambar l'islam ah koku oh, koku señ saliw mbacke da ko bayyi won xel mom wallahi koku dimension bi ma doon wax ci mouriti koku ci la bokkon yow rek ni deglu waaw koku da la bëgg mais señ mamon man dama contane ci yow alhamdullah man dund ñaari mourid yi man damay tok di di julli di len ñaanal muy sëñ Mamor Mbaye mhm. ak Cheikh Diop Mbaye Cheikh Diop koku mourid la Cheikh Diop Mbaye sëñ Mamor yéen ñaar alaaji Cheikh Diop Mbaye ndeysaan barke Serigne Saliou dama leen bëgg taaka ndax ngeen ni kenn lay Serigne Touba moy dawal sama yaram bi tem bi dama koy continuer dina ñew ba ci mourid ci jang kat yi ak xamante ni dañu am personnalité mhm. waaw du ma bàyyi kenn barke Serigne Touba barki Serigne Bamba ni ngeen ni kennalee Serigne bi maar lay taali melokaanu murit ndeysaan mhm. ñun Serigne ñun Serigne Touba lañ bëgg moom lañ gëm képp barki Serigne Bamba wax nga dëgg de ñun moom lañ nga dëgg de ndax balaa nga xam ni Serigne Touba rek a jar a doyloo mhm. nga wéet yow kese ci nekk woo ko ah, mhm. foofu la ma ne ñun xam nañ ci dara tey rek maa ngi ciy waxtaan ma ne. Uh-huh. Uh, Serigne yi boo mësaan a tudd tur wi am na ay dongo yu mësa uh-huh. tudd tur wi ci kanam. Uh-huh. dana leen sàllaaw ndax am moos day tudd gi sax mën naa ñàkk. maam nga xam mag ñi fi tegoon turu sëñ leen ndax am moos day boo nekkoon ci biir géej. bëgg a ci bato maanaam gaal daal la ko waxee. nga dem ba gaal gi tëmb nga xam ne da ngaa nar a suux. ndax am moos de tudd tur yi dana ci doy benn yoon. wallaay ah moo tax euh, mag ñi foofu lañ ko tegoon moom barki sarafa jërëjëf waay murit wallaay kontaan nañ ci yow te Moustapha nuyul ma waa Thiès yëpp billaay su ma amoon sa numéro nag dina ma gënal torop jëlal sama numéro man dama koy joxe jëlal 77 77 waaw 570 570 26 31 570 26 31 bu ci kenn woote nag nañu xaar tuuti ndeysaan benn waaye nee na ma li ngay def est-ce que est-ce que wóor na. waaw incha allah dinaa ko enregistré. ndeysaan jërëjëf jërëjëf. ma ndax li ngay def na ci lan ah bu benn sàmba booy la nang ma man sëñ Touba tax ma joxe numéro bi ku ma woo ba ma ñëw la. indi rek boo bëttee Serigne Touba rek moom moom moom moom moom alhamdulilah Touba dama koy soxla jëlal kuma ma woo wuyu la waaw ëmbaluma kenn lu ñaaw lu rafet bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam ñu ngi siyaare bu baax naka tey murit boobu abdoulahi diouf sëñ abdullah diouf fooy wootee fi ne nii maa ngi Thiès sa wa Thiès nak gañe nañ wa Mbour te man Mbour la jóge barki démb ak cheikh Abdou Karim ndeysaan kéemal la waaye Thiès la jaar ndeysaan barke Balla man dama barke seen Tuubaa maa ngi dama doon zappe nii. Mhm. doo ko accès. Mhm. doo ko gis émission bi war na seen Bàmba melokaanu murit. Mhm. muy émission bu am solo. melokaanu murit. melokaanu murit maanaam ni ñu ko ni ñu duppee émission bi. dafa am solo lool. alhamdulilah Ali dama damaa xalaat rek. ndaxte ndaxte ndaxte gis na ñun murit ah. barke Serigne Bamba ñun ñun ñun ñun dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo war a diñ lool ngir seen Tuubaa ndeysaan gis nga man dama dama yor benn entreprise mhm. dama wax tur bi ndaxte euh, peut-être bi ak télé bi publicité la waaye tey ma la koo may rek waxal waaye ah waaye Mouride Sadikh logistique la tudd ah Mouride Sadikh logistique Mouride Sadikh la tudd logistique Mouride Sadikh logistique. ah d' accord may naa la ko nañ ko dagg ci sama salaire. waaw <laughs> mais gis nga jamono ju muy xawoon a méttee. ba mhm. may ut investissement dama ñëw si may gaar ñu neen man man daal bëgg naa mën nañ la jàppale. Mhm. waaye pour jàppale la pour nga am sa projet naal bi mën a jàppandi faw. Mhm. fow nga dindi turu Mouride Sadikh logistique. daanaka daanaka keroog dama aalu aalu woo xamante ne. nee bu dee loolu la. dem leen ak seenu koom doy na bugguma loolu barke Serigne Bamba réew mi mépp dana mujj doon sëñ dogal di dox di dox di dox ba ñooñu fi ne mhm. daanaka ñu ngi sama ñu ngi ñu ngi sama ginnaaw sa ginnaaw lañ topp ñu ngi topp sama ginnaaw xoola mën naa laa kitaabul ci sëñ Touba jiitu nga leen te dootuñu la dab xam nga lu tax nag waxuma ko jubluwuma ci wanewu mais dama ci jublu ne mhm. sëñ Touba mhm. maam li gars yi faral di wax xàcc leen moom mooy dóor man taal bi seen Abdoulaye Chouin bu la. ndeysaan. Euh, yaa damaa dégg si benn wax nee nañ seen seen seen seen saa seen dafa doon ñëw. <laughs> waxtaan ak seen sëriñ sëriñ seen seen seen Abdoulaye bu mag. Mhm. fekk seen laat dafa amoon ay ay gan yu tedd. daanaka seen laat dafa mel ni ku xat daal seen Cheikh Saliou nekkoon ci nopp bi di ko wax daal naal yu mu bëgg a naalal seen tubaab. Mhm. ñi fa fekkee dañ jékki saa nekkoo seen. seen laa dafa jig saa ne ko moo seen cheikh moo cheikh li ngay wax xaw ma ci dara <laughs> waaye ki ngay bëgg liggéeyal de kooku xam naa ko. mu ne kooku boo ko bëggee liggéeyal moo lay xelal liggéey bi kàttanal la ca dooleel la ca faw xal la ko foo ko yaakaarut ba noppi wëlbatiku fay la foo koy seen tubaab hmm. képp kuy liggéeyal seen tubaab hmm. boo jógee bopp bi xamal ne doo ci dara. barke sëñ Tuubaa. barke sëñ Bamba yow mi oh. nan oh. meelu sëñ la. moo tax nga nen nga nekk fa. Mm-hmm. alhamdulilah la waaye nag ñi ko seex seen ñu ñu sant gi sant gi sant gi ñu sant ko bu yëg ne sant gi ñu ngi sant seen Tuubaa yëg ko si suñu xol yëg ko si suñu xel yëg ko si suñu jëf ñu ko si suñu taxaa waxee. barke sëñ Tuubaa am solo lool am waaw. ñun daal dañoo yàgg si ligne bi daal sant leen bu baax a baax a baax. non kontaan lañ jëwriñ jërëjëf. yàlla nga fi yàgg lool te ànd ku wër ak jëwriñ Macky Faye ndaxte. Mhm. man lu tax ma bëgg murit yi ni ko seen Fall di waxee rek murit boo koy ñaanal ñaanal ko. Mhm. maanaam yéeneem mat na te yéeneem xatul ñaawul yéeneem du xat du ñaawul. barke sëñ Tuubaa nga dëgg wan ma masaalik ba ñu gis yéene jooju. wan ma masaalik sëñ Yuusu. billaay kon mhm. nag. kon nag kon nag maa ngi ñaanal murid yëpp su dee mën naa jàng benn xasida suñ suñ Tuubaa nangul ma ko yan naa ko bokk ak murid yëpp. amiin amiin yëpp mat barki seen Tuubaa doole Seera Fall. amiin amiin waaw. ndeysaan dañu bañ di fàtte nag maam Cheikh Ibra Fall. ah kooku kookoy murid bi di. kookoy lépp oui kookoy lépp. kookoy nag yaa ngi yaa ngi bëgg a tëj émission bi nag. kookoy lépp kookoy lépp kooku kooku xoolal melokaanam melokaanam. kookoy lépp tubaab yi xam nga lu ñu wax. Mhm. Ben, il incarne en sa personne toute la gentillesse la générosité l'élégance présence, signalement très noir de peau taille au-dessus de la moyenne mhm. fronté élargi, chevelure crépue et bruchées œil petit et vif arcade solitaires saillante bouche grande nez épaté alliance dans le pays mariée avec les femmes les plus nobles du bol et du cailloux et de sinsaloum descendante directe des anciennes familles royales indigènes Guit et Drobé. Ces familles ont été rivales pendant plus, de, pendant plus de 300 ans. Ces femmes sont nommées premier Gansiri Fall. Fille de l'ancien Damel de Kayor, Omringone Fall, deuxième Gan Diop, troisième Koumet Tcheleman, et tous les deux filles de Damel Ladior. Quatrième Lala Esetofal. fille de Sambalobe, tué à Tuan par lieutenant soviet en 1886. Cinquième Bendafal, de Fall, de Demboa, Cheikh Ibrahim. jërëjëf waay mourid jërëjëf contane len bu baax jërëjëf jërëjëf kooku mu tuddu ndeysan musa Ka neena mus nay xibar ak jibulum bay wax ni yalla mi ko mom moko ni Bamba mo la mom rasiko jox ko say pexe tetal ko yon wa ab murid, di jaar baro raw pexe marit ba bari mourid ba doro ree di tex texi mu daldi di dem Tayba Ndaxaar ngir deg Bamba di fa xaar setna serigne sëriñ Tayba Ndaxaar ci njang lay xame pexe mu teud guddi listixaar ba mu xeye ba tisbar serigne maxtaar Touré fadiar leram nga won ko ay pexé maxtaar Touré nga yenu joor yenu ko jëm ka kajoor yoni ko cheikh bamba di buur seex ibra topp cay fexe mu gis fa mam adama géy sànni mbiram daldi di ca ngoy mu won ko bamba mbur mu reuy serigne bina ko foo fexe mu wax ko tegtal ya fa mom serigne bi wax ko la fa mom mu xamni gis na ko ko mom mu daldi fop mbiram ndeysaan <laughs> kooku rëcc na sëñ Sadibou Touré fu mu nekk rek na dugg ci ligne bi euh, di murit boo xam ne moom itam melokaanam doy na sëkk nu wane ko ci ci ak murit bu fekkee am na ko dugg ñu jël ko euh, noo ngi siyaaraat bu baax a baax mboolem waa réew mi waa bitim réew bitim réew gépp na jël naa sama siyaar te ko ci su loxo euh, sunu yaay soxnaa su jum nekk foofu ca Bologna bisimilah bisimilah bu fekkee am na ko dugg Euh, nga tegal utul ma ben Cheikh Diop Mbaye bu kii bismillah bisimilah. alaykum wa koku mané Mamadou mbou Mamadou mbou foo yoote sant bi da neexul moom. ci jaam jaamaat ci maam xaas Mbacke suñu affaire. oh Baye mbou waaye Ousmane mbou mom bu ñewon day nan café gi fi ne yeb bu baax a baax baax a mbou day sar ndeysaan. la ñaanal fa ñu gudd lool. ndeysaan. digil nga murid yeb alhamdullah ko Baye Mbuub moom moom moom damaa bëggoon laaj ko la ko sëñ moor Mbay Siise waxoon ay saan nee na sëñ moor Mbay Siise nee na ko koo dégg mu ne la tàllalal ma ñaanal la ñu tàllal nee na mu wax ba bàyyi te tuddul tur ku tedd ki bu raayoo rooyal yoral sa loxo ngeer goo njëkk romb rek roccil say loxo nday ndeysaan <laughs> ah, sama directeur programme sax murit la <laughs> muy sëñ Jibi Ndaw parce que comportement bu rafet lañ soxla murit noble la bismillah wa koku wa mala. Ya yow la kan. mala la Soxna Bousso. Soxna Bousso yow mouride nga fooy wootee. ndeysaan ay Soxna Bousso bu mu rëcc waay waaye bu mu way waay barke sëñ utal outal dimbali len ma outal mako crédit bu doy kuko jënd ba paré man may fay suma ma li nga li nga jënd crédit ma fay lako ko barke sëñ dimbali len ma rek Soxna Bousso na dugg eh ay dimbali len ma lesan han ah, melokanu mouride moy li personnalité dignité capacité murid du wax wax ju ñaaw murit warna russe rus yor cigarette diko tox ab murit war naa rus lépp loo lu bon la murit seigne Fall danaa nan ker goy bañ dé fekk la fa dom bu fa féexlu ndeysaan hmm? xoolal jikko yi nga xamantene seigne Abdou Karim wax nañu ko kéro ci mbour nit ni mu war noble bismillah allo bisimilah waaw assalamu alaykum koku man la man naa ñaan Colobane waaw wàññil wàññil wàññil wàññil sa télé. na ngeen def. la kan. man la Mandaak Ñang Kolobaan. ah sëñ sëñ. Mandaak Ñang Kolobaan Mandaak Ñang ah Mandaak Gàkku am na turandoo. yow rek la ñuy déglu waaw ñu ngi ñu ngi siyaare bu wér Maam Mor Mbaye. ndeysaan. barke sëñ Bàmba ñu lay siyaare bu wér a wér a wér barke sëñ Tuuba. ak saa. suñ maam Mor boo boo duggee ci télé bi rek boo commencé wax rek wóor na yàlla jëmm suñ mu muri yëpp dana war dana war a toog di la déglu. ndeysaan yaa baax. ndax yow déglu la barke sëñ Bamba dana bëgg Sëriñ Tuubaa la boo toogee di ku lay toog di la déglu rek day gën a bëgg Sëriñ Tuubaa. sëñ bi rek a fi ne. yaa xam ni nga bëgg rek yàlla la ko yàlla defal. amiin te Sëriñ Tuubaa fay la fii fay la fële. ok Sëriñ Tuubaa. waaw yàlla na yàlla na la yàlla defal li ci yow rek yàlla na ko yàlla def ma sëñ Maam Mor Mbaye wóor na yàlla laa nii boo xasee dugg ci télé bi rek wóor na yàlla dañuy am yëg-yëg boo xaay rek dañ lay dañ day day toog yow day toog dina seetaan daal suñu xol day fii ci yow euh, sëñ Maam Mor yéema na affaire yi doy na waa ndeysaan ndeysaan ndeysaan yàlla na la yàlla defal li gën ndeysaan sëñ Mandaak jërëjëf jërëjëf ndeysaan jërëjëf jërëjëf sëñ Mandaak ñoo ngi koy ziar Euh, sëñ Youssou bu dee am nañ benn alaaj Cheikh Diop Mbaye nga may ko murid yi surtout nag yooyu muy muy kenn la sëriñ bi nga xam ne da koy ber moom sax jàngam yëpp ber sëñ Tuubaa boo ci am rek nga tegal nu ko nu nu nu nu di ci naan kafe maa ngi ñaan daal murid bu toog ci heure bi nanga nga naan kafe am na nag genn kilifa gu waxoon ne bisimilah. ku baax ñu kooku. Ah, sëñ Sonia bu Mbour. sëñ. Sonia bu Mbour. sëñ Sonia bu ne ca Mbour waaw. waaw sëñ bi damay lay laaj yow bi sëñ Abdou Karim di ñëw mbuur yaa nga fa woon danga koo dégg. maa ah, yaa ngi woon ca baas ba wala da nga àndoon ci cortège. waaw cortège mm-hmm. waaw. léegi dama leen di laaj lan moo tax ngeen dalal ko foofu sëñ Abdou Karim xajul foofu stade ba la xaj de. xajul foofu xajul foofu loolu kay njuumte lu rëy la kay. ah. loolu kay njuumte njuumte bu rëy la kay. waaye stade ba la xaj waaye barke sëñ Touba. stade ba rek wax ngeen bilaay bilaay. li mu ànd rek xajul foofu barke bi ànd rek xajul ci xajul ci bu kii la rek bu a réussir ren bi moo lay wan beneen ndeysaan. moo lay wan beneen waaw mu ngoog ñu lay a bi loo may indil ci melokaanu murit ndax yow sa turandoo murit la woon sëñ son bi mm-hmm. ndeysaan baax rek comme li nga wax rek li nga wax kay amul lenn lu ci war a mën a yokk loolu murid mhm. nga ko waxee rek amul leneen lu daal loolu di la sant bu baax di rafet émission bi. alhamdulilah li nga ne lañ bëgg a man ma ma bàyyi ci xel di toog di ko déglu nii. ndeysaan ndeysaan. waaw ñu ngi lay sant bu baax a baax wax dëgg yàlla yàlla yàlla fay daal. waaw jërëjëf kontaan nañ ci yow loolu keroog gi taxawaay bis bi tam taxaw nga ci taxaw bu rafet wax dëgg yàlla. ah alhamdulilah alhamdulilah yàlla jërëjëf jërëjëf waaye jërëjëf fati Serigne Souhaïbou bu maa ngi koy ziar ak waa Mbour gépp Mbour moom bàyyiwuma kenn ndeysaan waa Relais waa Coose ndeysaan ñoom aale jàmbaar yooyu ak ONCAT ONCAT xam nga ni ak Coose ak Relais ak 11 novembre quartier bi ñu tuddee 11 novembre muy bis bi sëñ Touba jógee ci géej gi sax tudde nañ ko quartier ci Mbour Mbour nag la sëñ Saliou ñëwoon dimbali ñëpp moo tax fi mu ne mbuur boo demee xool mbeddi mbuur sax boo ko xoolee sa sa xel day day day day day xaw a dem ci mbeddi Touba yi ah, ak seenu dal ak mbuur ni muy yokkoo xam nga mbuur à part Touba ni mbuur di yokkoo benn dëkk yokkoowu ko ci Sénégal à part Touba ndax lan ka fa nekkoon la nag mooy Serigne Saliou noo tax euh, melokaanu murit daal mooy mooy murite bu fekkente ne image bi pare na sa nju su nga daal di koy dugal. bu fekkente ne ni pare na nga daal di koy dugalal murit yi ndeysaan euh, di siyaaraat bu baax ñoom suñu xaayim sàmb waa kafe gi ñoom daanaan jaañ jàmbaar yooyu nañ dem dellu siwaat ci plateau bi بيوم مصدائم الأملاك والأمم والأمم قل يا توبوا إلى الله توبوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله تدوم لا تفتن أوز قلوبكم خميم فكلنا فليتب ارجو مسادفة أستغفر الله أضعافا مضاعفة أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما سكرت من الأناس والخصم مما سكرت من الأناس والخصم بريا الحمد لله أما خد خدا وتري من بعد ما كنت سافق وسادر من بعد ما كنت سافق وسادر أمدن يكافي مسجدا منه في الأسر ma salaatu alal muxtaari min mu daare jërëjëfati Serigne Mor Kese di jàmbaar joo xam ni moom tam fi mu ne nii nga ko gisee nii day dem ba bitim réew chargé ay conteneur am ñëw indi di liggéey waaye itam boole ko xasida yi di jàmbaari sëñ Tuubaa joo xam ni moom doy na ci nga ne melokaanu murit euh, moom it am na ko ndax doo ko gis mu sollu désordre wu doo ko gis mukk mu mu mel nu mu warta mel Ah, moo tax bi ma ginnee sëñ Cheikh Diop Mbaye ñu indi ko daa mel ni euh, benn la rek waaye léegi ngeen gis alaaji Cheikh Diop mbaay bu fekkee am na ku dugg ci ligne bi ma jël ñetti téléspectateur bismillah naa jël ñaari téléspectateur nga doog a teg Cheikh Diop bismillah bismillah waaw murit waaw góor jërëjëf <laughs> la waay wax nga lu neex barke sëñ Touba wax nga dëgg Ahmadou rek. kooku na duggaatal de li wax ëpp naa bañ a duggaat barke Sëñ Tuubaa kooku rek a fi kooku euh, bokk ci ndeysaan sëñ Moussa Ka nee na njool màkk jox na ko mboolem yool yi ñuy aji umre jaari kër rusuuli nafaani naafixu fii limbal wéri bi maa bihi yaxbutu nii kullu wuli ndeysaan Ah, taalif na foofu téere yi wedemloo yow mal xiyaam tubaab yi yàqu jumlu ndeysaan bàmbaa nga naan sax xayrul xuruuji ru yi daj naa ko foofee moo di rocci ru yi moo tax nee na ñitt ak juróom-ñett la ci mu baa aat bàmbaa ko jaayante jëndee kiraama siraa soo xam ne xàmmee sul mbóot yow yow mal xiyaam la ñuy xàmmee mbiri xóot ya moo tax képp kuy lekk suukar wala ngay euh, dugg ci oto yi lu tubaab defar fukk juróom ñaar fukk ak yoo xam dafa araamoon ni sàngara Serigne Touba nee na maa ko jaayantee ci gabon ba mu lew ci yeen fa ma ko don jaayante nak mititu génnig ru daj naa ko foofa moo tax képp koo xam ne yaa te doo wax jërëjëfi seigne touba bala nga dugg àjjana ding ko lijeenti parce que la aramon sabu sabu touba be ko defal nan nga ko ci meuna labale ku labul la defaral loy labale munta nek ndax touba bi labul bismillah man la ñang ma maa legi dugga seigne manda ak yow lu ñepp di la ban wuy ma heure bi lañ bëgg ñu nga ñaanal ki mu yok ko Mbacke ba dégg nga gën a waaw gaa yi nee nañ duma pare tey dix ba kañ waaye dimbale noo nga gën ñu ko yokkal ngir jëmi sëñ Tuubaa ba kañ ba kañ moom kay ba ba suba si heure bi sax <laughs> waaw Mamor yow itam waxtaanu sëñ Tuubaa du jeex Mamor waaw nga dëgg waay eh dégg ngeen ko Jibi ah, Ndaw heure café Tuubaa yokk na léegi sëriñ Tuubaa rek moo fi nekk billaay la Maam Moor bala nga koo xam nga dem ci dëkki tubaab yi barke sëriñ Bamba boo demee ci dëkki tubaab yi tubaab yi wër jëmi sëriñ Tuubaa màggalu Tuubaa da naan feetu muridu laay gi kañ la hmm. su suma mat euh, Espagne ñu toll kër sëriñ Tuubaa ga na yàlla la ni dañuy yàkkamti feet gi ñëw barke sëriñ Tuubaa barke sëriñ Bamba màggal gi kañ la feetu muridu laay gi kañ la tubaab yi laa lay wax ni dañuy lekk ci yàpp wi laa bu màggal gi ñëwee ba maar day taal barke sëriñ Tuubaa ndaysan sonu Fatou Kiné Sarr ah, ma Mor ah surtout Afrique du Sud Afrique du Sud mom tuba bi mom ma day taali surtout ni ni ni waaw Abdou Diaw sama ben xarit nena ma waaw ab chinois waaw mënoo lek ñaar dërëmam waaw nena na Chine Chine màggal gi ñi defal seigne Touba Chine waaw chinois yi ñu dëkkal dañoo dindi trois millions ne defal leen ñuko ci bisub seigne Touba bi xoolal euh, gis nga Afrique du Sud hmm amna dëkk bo xam indien la tuddu indien waaw indien am na benn indien bu fa nekk boo xaar ni gis nga bu màggal gi jeexee. Hmm. day commencé bi dal di la waa dum dem. dañuy toggee fi nga xamee ne fi la ñuy màggale di fa toggee dabi euh, dab yeeg yooyu fa ñuy defee la berne bernde yi. Hmm. pàcc boobu moo nu ko jox. Hmm. te foofu tubaab yi dañoo bañoon wóor na yàlla wax ñu nekk bu nu mosaa di def sax bu nekkee ci kaso bi nii tubaab yi dañuy tere dañuy woo police yi naan leen léegi fii wóor ñu fee taxaw am na tubaab boo xam ne mu gënoon a bañ murid waaye wóor na yàlla jëm sëñ Tuubaa xaral ba nga xamee ne ma nga nekk di bañ tubaab bi ñuy taxaw ci ci buntu këram après suuf boobu ñaari fan la ci teg daal ñuy déclaré kër gi da jaay ca la ñu ca la ñu ko jaayee ñu ko mu nekk génn kër. maa la ko la koy la koy dàmp ba mu ñëw du ko xam sax. waaw mu ngoog loolu yokkal ñu heure bi rek. wax nga dëgg jeex na. Euh, dégg ngeen ko waa télévision bi léegi du maag yéen euh, heure bi far force yokk na euh, gaayee ko wax parce que télé bi yéen moomu leen ko jibi ndaw moomoo télé bi yow ak Mbacke Mbodj. Euh, alaaji mbàkk yu fay moomul télé bi euh, Cheikh Balla sàmm moomul télé bi Mamor Mbaye moomul télé bi télé bi ñi ko moom mooy ñi koy seetaan téléspectateurs yi ñoom nag sax laa bëgg léegi ku ku ànd ci li waa wax rek da ngay dugg nga ne li mu wax euh, nañ ko wàññi wala nañ ko yokk ma xool ñaata voix laay am ma xoolaat keneen bala ñoo teg alaaji Cheikh Diop Mbaye ma xoolaat ñaata ñaata ñaari nit buñ duggaatee rek ma xool ba xam dégg ngeen ko ah ji nag nee na moom dañuy dañuy dagg sax émission bi léegi 52 minutes nee na <laughs> suñ ji fi ndaw nee na dañuy dagg émission bi waaye yaag téléspectateur yi xam leen ko benn waay bu gàtt la bikum baaxe abba aniya Seex Moodu Bamba ne kaman sa xabat badrun sayyidun sam bil fadla kaman sa xabat deysan badrun sayyidun sam kuy Baay Faal defal ne kaman sa xabat badrun sayyidun sam bil fadla kaman sa xabat deysan badrun sayyidun sam ana soppey da bay Mam Say Njaay kaman sa xabat badrun sayyidun sam bil fadla kaman saaxaban ndeysaan ma durun saayidun sama soppu maam seera faal kaman saaxaban badurun saayidun sama kaman saaxaban ndeysaan badurun saayidun sama bil fadila jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf noo ñaan noo ñaan ci daraje Cheikhul Khadim yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm xanaa dafa tolloog ni rek barab bi barab bi dañu cee bokk waxuma la ñëw sax ngir jàng waaye ñàkk fee ñëw ci nun daa wóorut ndax jëmm ji yàlla dogal mu toog muy sunu nijaay Euh, jërëjëfati alaaji Cheikh Diop Mbaye euh, Murid Sadex nga xam ne moom émission bi moom bu xësee jot fi mu ne ku ko soxla programme danaan la bàyyil ba Café Touba jàll bu dee ngont nga ko bëgg a defloo wala fa koy dalal na am télévision Touba TV moom alaaji Cheikh Diop noo ngi koy siyaaraat baax di ñaan suñu borom dolli ko ci kàttanu Serigne Touba ñoo ngi ziar soxna Marème Taban di taalibe Serigne Touba bëgg ko lool di ko liggéeyal maa ngi koy siyaar baax di ñaan suñu borom dolli ko. waaye soxna Faat Diagne maa ngi koy ziar foofu ci Biafra sama ziar bépp sama doom jooju laay jël ziar bi teg ko ci loxoom mu séddaleel ma ko mbooleem ñëpp sa ñoom yaay ak ñëpp yaa leen koy jox bu boo boo leen ko joxul rek buñ ko am même sa papa dan dan noonu la moom ñu ngi ko tuddee nag sëñ Mouhamad dan moom maam Thierno Birahim borom koso moom lañ ko tuddee waaye mu jeex tàkk ci moom noo ngi ziar sëñ Ibrahima ñan waa koso yooyu yëpp noo ngi leen di ziar nga xam ne jàmbaari sëñ yooyu bu fekkee am na keneen ku dugg 88 628 08 18 ma jëlaat ñaari téléspectateurs yeeg ñaar ñoo xamante ne yëg nañ melokaan bi nu doon ci sëñ Tuubaa melokaanu murit nag laa wax murit daal day sol lu set di di di di sañse di xeeñoo parfum de classe bisimilah. bisimilah. allo waaw kooku. allo sëñ bi naa def. sant sëñ Tuubaa. man la Soxna Fatou Diagne Mbour. Soxna Fatou Diagne wàññil télé bi tuuti. naa def mbaay. Soxna Fatou Diagne foo dëkk ci Mbour. kontaan ci yow rek maa ngi dëkk boori Daara bi rek. ah. ngi dëkk ñoom Bombardier bu mag bi rek. ah kër ñoom Bombardier moom lu tax ñëwul keroog bi sëñ Abdou Karim ñëwee te sëñ ñoom Moustapha Guèye ak ñoom Luc Nicolaï ñëpp ñëw nañ. ay moo xaw a si buru moo matee ñëw waaye noonu laa la bëggee na. ndeysaan. émission bi nag maa ngi ñaan yàlla continuer na ngeen yokk nag heure bi li waa ji wax dëgg la. ah kon am naa keneen. Jibi Ndaw dégg nga ko yaa ngi waaw damay bëgg a gont jaay waaye mën a dem fii jeexaloo du ma dem. oh boo demee yàlla na lépp da ngay jaay. waa damay jaay waaw. na lépp jar ci barke Sëñ lu sax léegi. amiin waay mbaay baax baaxi bi suboora ti jar jar jar la ti la day ilam taboora. amiin amiin barke borom Tuubaa na lépp jar. amiin waay. jërëjëf sama yaay. yàlla na fi yàgg lool xéewal yëf yi neex na tolop nag it heure bi moom na ngeen ko yokk ba baax nag. ndeysaan jërëjëf. waaw xaaral paasa sama doom bi. jox

incha allah dégg sama cameraman naan day ñëw doo ñëw de Abdou Khadre doo ñëw Ousmane Mbuub xam naa ma nga naan day dem waaye fi koy bàyyi <laughs> ndeysaan ah en tout bëgg la ndeysaan ndeysaan ndeysaan da lay seetaan bi jeexul du dem suñ tubaab rek la heure bi daal nañ ko gën a yokk incha allah incha allah sëñ Touba doog moo fi nekk daal sant sëñ Touba rek. képp barke borom waaw di di di ziar sama sama sama waa kër Wasila sëñ Afia ndeysaan ndeysaan ak sëñ Baara mu sëñ Afia di ñaan yàlla mu yàgg fi torop. jërëjëf jërëjëf ñoom Baye Galas ak sëñ jërëjëf jërëjëf ndeysaan. jërëjëf Tons. jërëjëf waaye jarbaat kontaan naa eh, jërëjëf moom laay eh, bu ma amaatee keneen doo ko kii ca laa ko naroon tëjee ndax dese na ma trois minutes ak tàggatoo yeeg yooyu eh, yaakaar naa ne daal. Euh, kaala gii nag nga gis ma teg ko ci sama kaw ndeysaan jàmbaari sëñ Touba ja moo ma ko joxoon ak trois morceaux muy sëñ Bassirou Baara Mbacke euh, di rakk Cheikh Sidi Muxtaar barki Dembo Ndiaye rek la wuy ji sunu borom moo ma ko joxoon moo tax léeg-léeg ma toog yaa teg ko nii sama kaw euh, dund ci sëñ Touba daf may daf may daf may neex lool loolu rek la waaye ñun kaala gi ci ndigg li sax lañ ko gën a takk mooy liggéeyal sëriñ Touba mooy mooy mooy loolu ci ndigg li lañ ko gën a takk waaye lii. wan ko nit ñi rek moo tax nu koy def nii léeg-léeg waaye ñoo ngi siyaar ñëpp sëñ Bassirou Bara daal ma ko joxoon bisimilah. waaw sëñ bi ñu ngi siyaar. ñu ngi siyaar kooku. bisimilah. Euh, kooku rëcc na bu fekkente ne am na keneen ku dugg rek ñu jël ko kooku kenn ku mujjee dugg daal moom la ñuy tëjee li nga xam ni mooy émission bi euh, yaakaar naa ni maa ngi siyaar ñiy woote ñëpp nag bisimilah bu fekkee am na ku dugg. Euh, ñu jël ko bu fekkee kenn duggul euh, sëñ sëñ sëñ sëñ euh, Youssou nga tegaat photo bi nga xamante ne moom la fi Mama Ngoné indi léegi muy xale boobu ñu jaa jël daal di koy téye ki ko téye na ko bàyyi te xam ni du ko jariñ dara barke sëñ Touba képp ku ci mën a ñaan itam ñaan leen ñu wéy juróom gisaat ko jàmm ci darajey Seexul Xadim ndax doom moom ci xol la sax loolu noo ngi koy noo ngi koy bàyyiloo xel nit ñi te itam loolu bokk na ci école yi tam ñu gën a yokk sécurité yi ndax lu mel noonu sa doom jàngi ñëw ak siwaatut loolu dafa dafa dafa dafa dafa doy waar loolu mu ngi nii daal quatre la am ni nga ko jëlee foofu ci Masaalikul Jinaan waagu ñaay la dëkk waaye tam ngeen euh, ku ci lu ci waay kii rek nga jëm cee nga jéem cee jàpp bu baax a baax euh, numéro bii ci ngay wootee muy 77 738 04 97 ci la ñuy wootee yaakaar naa ci la ñuy wootee pour ki ki nga xamante ne mën na cee jàpp rek xam nga bu toll nii moom foo ko yóbbu rek boo boo defalut yàlla rek doo ko dellu si ndax kii daanaka wax sax mënu ko yow yaa ciy defaat waslu ak xam ne bis dana jot nga war a rendre compte sa borom loolu rek la waaye nag télévision Touba TV tam ci lii rek lay dox moo war a defar réew mi mooy télé laa télé qui nous rassemble kenn xamu ko ci lu ñaaw kenn xamu ko ci lenn loo xamante ne nii euh, musiba la wala dara ci sëñ Touba rek ci lañ ne. di ko nak diko di ko ja di di ci wax sa su nek sen émission Café Touba mo ngi len di euh, tàgguwaat bu suba ak jam inshallah allah papa goro warna ñew wax ma ci diaspora bi surtout Bamba Dey ndax deg na ñu ne aladi mbàkk yi fay dan na ko ak ñom seigne Cheikh Balla sambu Bamba Dey bi passé seigne mamour mom Cheikh Moutada non ko ci ciar momit murit la xam nga ni koku fu mu romb aéroport sax day ñew nga gis tubaab yëpp juk taxaw seigne Ahmadou karam murit la dana ci ñew tem bi bàyyeeguma ko muy melokanu mourid semaine bi yeb melokanu mourid ku ci am dara rek indil mako nan la mourid di comporter wo kon yaakaar naa ni foofu laay tënk émission bi abdur wa nahfu min arrahman laysa min bidan wa soodaan nafaani naafixu nafan jazaba li xalba kulla faizin fan jazaba barke cheikhul الخديم barke cheikhul الخديم barke cheikhul الخديم barke cheikhul الخديم barke cheikhul الخديم barke cheikh mat bamba xaadimal mustafa yàlla na yow rek a béguloo